dal leen ak jàmm yéen kaay yu bari xëyandoo tey ndorteel campagne électorale bi candidat yi soobu nañu ci dagaan baatu askan wi Anta Babacar Ngom ca banlieue bu Ndakaaru fa la yëkkatee kàddoom xamle ne la ko yitteel mooy fexe ba jëlee fi euh, mag ñi nga xaman ñoo yëngu ci wàllu politique jël politique rek def ko seen i métier ñooñee dañ fee war a jógee euh, bu ñu sukkandikoo ci njiital arc euh, keneen ku campagne bokk na ci Bassirou Diomaye fay Bassirou Diomaye président Pastef ak ñoñam jot Euh, Parcelles Assainies bokk na ci temps d'antenne gañu xañ Bassirou Diomaye Faye Walf TV ne dina ko ko jox euh, mu ngi ci yéenekaay bi di Walf Quotidien ñu ngi seen i tamit Mame Boye Diao di candidat jàpp ne or beeg gaz beeg euh, fexe ba suqali ci mim réew dina ci béy waaram Thierno Alassane Sall tënku ci assise nationale ya bokk na ci Serigne Mboup xamle ne tamit bëgg na jëfee ni Allemagne doxalee ba réew mun a ci wàllu industrie loolee bëgg na fa indi ci mim réew tolérance zéro de ci fal moom la woote eh, ci ñi jalgati ak luubal alalu réew mi yéene kaabi di yor yor gi xeeduñu dektal coup d'envoi gàngoog campagne gi eh, door na mobilisation gu amul fenn ci akapes moom la patriote yi yota amal démb eh, waxtaane nañ fa programme projet bu pastef bokk na ci la leen yitteel mooy Bassirou Diomaye Faye doon juróomeelu président bu Sénégal Déthié Fall moom ci yor yor bi xamle ne xewum ndaw ñi doon na lu ko yitteel Serigne Bopp ne dina béy waaram ci lu mun a suqali réewum Sénégal Malick Gakou yi tamit euh, jàpp ne am na doole gaak xam-xam ba kattan ga muy euh, suqalee Sénégal ëllëg Anta Babacar Ngom ne dañoo war a woon ginnaaw way politique yi nga xamante ne politique rek la ñu jël euh, def ko métier Amadou Ba moom fas yéene daanaka béy seen waar ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci yor-yor bi yéen kaabi di la yéen kaabi di Sud Quotidien ne top départ gàngoog campagne ga door na fukki candidat juróom-ñeent ñoo cay dagaan baatu askan wi am nañu fukki fan ñeent yoo xamante xamante ne daañu jege askan wi waxtaan ak ñoom euh, jukkil leen seen i programme ak seen i mobilisation waaye nag fitna gi tàmbale nuyoo si ci bile campagne euh, ci jamono joo xamante ne CNRA bloqué na temps d'antenne bu Bassirou Diomaye fay ne amul sañ-sañ yebal fa kenn mu fay waxee yéen a kaabi di le quotidien mu ñu dektal déclaration goo xamante jot nañ ko nemmeeku ci ndorteel campagne bi candidat yi ñoom kenn ku ne diggee na Bassirou Diomaye Faye mujjuta am temps d'antenne ci RTS fitna gi tàmbale nuyoo aussi ci diggante waa APR ak ay jegeñaale Bassirou Diomaye Faye ca Parcelles Assainies yéen a bi di ne heures ne tàmbalewaat nañu campagne électorale gi eh, candidat yi kenn ku nekk ma ngay wax eh, ëllëg boo joro yore réew mi noo koy jiite eh, candidat yu bari nag wax nañu seen programme yéen a bi di wax ji wax ji mooy ndorteel campagne gi la fitna ko door bokk na ci fitna googe ak ay yu woy politique mu ngi ci yéen a bi di sursa ah, yéen a bi laas ne tey tey bu ñu toogoon ba cour d'appel wala ba cour suprême euh, dakkal bile décret ana lu mun a xew ëllëg mu ngi ci yéen kaab yi di laas ci xëtam bu njëkk yéen kaab yi di le mandat di ñu dégtal euh, njiital coalition Benno Bokk Yaakaar candidat bu Benno Amadou Ba ma ñu ne tàmbali na euh, jëmmal boppam ci favori mu soxal élection yi de yéen kaab yi turbine ne ay ñooñu Amadou Ba daanaka ñoo ko ba ministre yi ne ci nguur gi ak ñi ñuy jot a génne keroog ci nguur gi daanaka ñu bari ci ñoom dañoo faf ma Ba ci ndorteel campagne am yéen cabinet campagne googee door na waaye nag bugaan de bugaan gi dani bokkul ci candidat yi dagaan battu askan wi waaye nag mu ngi dànkaafu nguur gi bu ñu bloqué mukk bu ñu gàllankoor bi le nañ ko bàyyi nu mu nekk te candidat yi war a laaj réew mi dem jege askan wi ngir ëllëg ñu mun a am tànneefu njiitu réew bugaan gi dani jàpp ne jàmm réew mi bokk na ci la ko soxal ba tax na bu kenn salfaañee élection yi ñu soobu yéen a ne Doudou ñu wàccee keroog yàggut ci gouvernement bu yees bi ay ñoñam mu ngi leen di dalal ca Casamance ak feneen ak feneen bu ñu yëngu-yëngal nañu euh, lu xool lay xaw ci élection présidentielle yi le yéene kabi di la Soleil ne jokkalante la am na maître Sidiki Kaba euh, wutu na amadu Ba ca primature mu ngi ci yéene kabi di la Soleil yéene kabi di euh, las mu ngi ñuy dektal ndorteel koor bi am nañu ko um ci réew mi am nañuy xaar ëllëg ak jàmm war a tukkee ci commission gi seen seentu weer wi amal ndaje ngoonuk tey ji ca RTS yéene kabi di las ne ci jamono jooje fitna am ci ci euh, corniche Ndakaaru VDN 3 bi ab euh, agresseur ay agresseur ñoo fa song ab chauffeuru tata bo faat bakkanam dañ ko jàmpaaka bi mu mujjee ca lalu hôpital foofee la ñàkkee bakkanam yéen ak kaabiri stade mu ngi ñuy dégtal euh, Tottenham euh, jot na noggatu Aston Villa euh, ñeenti bal ci dara yéen ak ñu dégtal Pape Makhtar Sarr tàmbali na daanaka yëglu ca Villa Park yéen ak yi ne ñi yëglu démb ca Ligue 1 bi bokk na ci Guédiawaye football club mi noggatu ay Pikine dan ko ñaari bal ci dara. Dixième édition Prophet Mohammed le 20 avril. 2024 ci New York ngën ji mbindeef yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci bisu ñaar fukki fan ci weeru avril la gane si woon ci calendrier bi ànd ak jant bi bis boobee le Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mouhamed Sakho ak mbooleem jullit yi di amal at mu ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York muy bésub gën ji mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa di bésub jullit yépp di ci woo autorité étatique yi di ci woo diplomate yi di